أعوذ بالله من mu tedd mi fi teew maa ngi am mbégte tey di yëkkati kàddu kàddu lislaam jaglal ko mbooloom yëpp nuyu leen nuyoo lislaam nuyoo bi maa ngi ci jiital xalif général sëriñ Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane sëriñ Modou Mbaye Ndiaye Thiargane teg ci sëriñ am Amdi Moustapha Ndiaye Thiergane ak bépp njaboot bu bokk ci Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane su loolu wëyee maa ngi euh, am mbégte tey di teew fii pour la première fois ci jataay bu tedd bi nga xam ni ay yiw kese moo fi jóge ak njëriñ maa ngi teew ànd ak délégation boo xam ni ràññee nañ ci le maire de Lambaye docteur Assane Ndiaye le maire de Ngogom monsieur Pape Momar Ngom maire Gawane euh, ala euh, monsieur Ndongo Faye adjoint au maire de Lambaye maire Bakhaw Diène ku ñu wax euh, Ibra Badiane moom moo représenté éleveurs yi ci ñu ràññee ci aussi Ibrahima Sarr moom moo fi toggal les renseignements généraux euh, su loolu wooyee ñu ngi yëkkati kàddu di nuyu président conseil départemental bu Bambey ak délégation bu mu àndal ñu ràññee ci les honorables députés les honorables représentants du con euh, Euh, représentant HCCT autant pour moi ak bépp gan gu fi teew ci bés mag bi nga xam ni dañu am kontante di fi teew ngir ñëw taataan jëfu ki màgg kii di Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane mi yàlla baaxee mu jaayanteeg sëñ Touba ba sëñ Touba ñaanal ko mu jël li ko sëñ Touba joxoon yëpp ñu def ko ci liggéeyu yëkkati bi parce que for naa ci ay ci représentant sëñ am di Ndiaye Moustapha mi moo ma ko wax ne ma président yëgal ni que ñun ñoo doon Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane mais amuñu fi benn alal parce que ba Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane li ko soxaloon du àdduna li ko soxaloon mooy ba mu ba ko sëñ Touba Cheikh mooy liggéey defar doomu aadama jàppale doomu aadama moo tax li amoon yëpp da koo séddale mu ne ma ñun ñii ay ay sët sëtam sët sëtaat dañu dem di àbbi tool di bay donc kooku exemple la de désintéressement kooku ku wëyal jàng euh, liggéeyu sëñ Tuubaa ci kaw suuf daanaka liggéeyam yëpp ak jëfam yëpp suqali doomu aadama teg ko ci yoonu siraatal mustaqima ngir mu xam yoon bi muy jaar ba mën a jëriñu ci àdduna ak ci àllaaxira topp yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ni moom lañu Sëñ Tuubaa digal ñun ñëpp bés boobu nag man dafa am solo ci man ba ma yaakaar ne bu ñu fi ñëwee war nañu mën a wut ay boroom xam-xam ñu mën a ñëw jukkil ñu lu bari ci li sëñ Cheikh Ababacar Ndiaye Thiergane def wesaare ko ñi ko xamuloon xam ko ndaw ñi xam ko daal di roy ci moom parce que ba ma déggee ñu ne thème bi euh, kilifteef lañ def thème central dama ne ah loolu de lu war la parce que thème bi dafa méngoo euh, contexte bi bi ñuy dund ba pare ki ñuy màggal mën ñoo indil lu bari ca la mu jëf jëfam dafa nekk toujours actualité ci réew mi donc man loolu laa doon xaar pour ñu jukkal ñu ci pour nit ñi taataan ci yóbbaale mais li ma fi dégg gaa bonul parce que dégg naa fi ay doléance mais bés bi man ci sama xalaatu bopp du bésu doléance parce que boo donnoo Babacar Ndiaye Thiargane ak li mu def ci réew mi yëpp ci ronu murit bokkoo ay ñëpp ñu seen Tuubaa seexal ak kilifa diine réew mi yëpp def fi lu rëy ba nga xam loolu moo dëgëral suñu réew ba suñu réew dëgër ba ñun lu mën a yëngu ci àdduna duñu tiit parce que xam na sañ sëñ Touba jiitu na yàqkat yi ci xelu doomu aadama samp na fi loo xam ne kenn dootu ko dindi ba faw donc boo ñëwee teew ci bësam bu màgg hmm, war ngaa mën a say euh, problème domestique maanaam say mbootu nga denc ko ba suñu bës bi passé nga woote forum wala réunion boo xam da nga ci invité kilifa bi toog yëpp ñoo toog càmbar problème tund bi yëpp ci développement tënk ko jox kilifa yi pour am yaakaar ñu jëf ci man loolu noonu la noonu laa ko gisee donc donc euh, sama wax bi proposition la pour ñu améliorer communication bi ci bés parce que man jàpp naa ni euh, gan gu jóge fële warul xam bu bu duggee ci tànt bu yànj bi ak ni ñu ko defaree warul xam ndax ci liggéey ba am na ñëw na ak ñëw <laughs> lu rafet la fi gis loolu la war a yóbbaale mais boo taxawee ne am na ñëwul woon rek <laughs> da indi xel ñaar ci ci ci xelu gan gi donc maa ngi yem foofu ci ci loolu en tout cas di pour ñu améliorer communication bi pour ñu améliorer organisation bi ci bés bu toll nii. su loolu wooyee maa ngi euh, am mbégte di leen indi nuyoo ak sant ak ndokkeelu président de la république ak ministre de l' ak premier ministre gouverneur bu région de Diourbel ak préfet département de bi dafa nekk ci ay xat-xat parce que tey lañ demoon Baba ak am fa événement mu ñibbisi si a sonn moo tax sinon moom bëggoon na personnellement teew ci bés kilifa yooyu ñu ngi leen ni maa leen ni seen nuyoo ak seen ndokkeel ak seen ñaan ngir bés bi ñu yàgg ko def te saa su nekk mu gën a yokk ni ko boromam ñaane woon ci sëñ tubaab te sëñ Tuubaa may ko ko ci lu wér di ñaanal xalif bi yàlla bàyyi ko lu yàgg ak njaboot bi yëpp ba lépp lu ñu dëgmal ci tundu mexe làmbaay bi yàlla suñu borom sottil ko parce que xam na ni que yàlla mooy maye état moom dafay ñëw pour jéem a gérer situation nit ñi te xam nañu Sénégal jafe-jafe dafa bëri lépp urgence la état lu mu def def def rek bu gëstoo gis ni ni des na lu bari lu ñu war mais yàlla mooy maye donc te jàpp nañ ñu fi tund Bawol gannaaw ba suñu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul liggéeylee boroomam ba pare moom yàlla may na ko lu mu koy may te lu mu ko may yëpp ñun la ko de ñun la ko tuural fi balaa bi dem mbir mi kay dañuy xool ñun naka lañ koy jëriñoo loolu mooy jàpp mooy problème bés bu ñu yàlla tegee ci yoonu jëriñoo lu mu ñu liggéeyal rek daanaka euh, suñu aajo yu bët dana fay loolu moom lu ma li ma li ma leer la donc euh, di yemal suma kàddu foofu di leen wax encore sama mbégte di leen wax encore euh, Euh, euh, ñaanu kilifa yi sàkku sàkkuteefu kilifa yi ci ci euh, famille Babacar Ndiaye ñaanal réew mi réew mi nekk ci jàmm ñu ñaanal mi am dal ñu réew mi nawet bi di ñëw nekk nawet bu bu antu ñu mënoo ko ñun ñëpp te ñun ñëpp parce que nawet moom su baaxee rek nekk ca kaw ak ka nekk ci taax yëpp jëriñ donc ñu ñaan yàlla yàlla defal nawet bu mucc ayib ñu euh, ndox mu ndox mu sedd guy ba lépp lu fi ñor ñu jëriñoo ko yàlla na Mekhe gën a yokk ci barke Serigne Babacar Ndiaye Thiel Thiel ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul jërë ngeen jëf.